na loo xam ne àq la hmm. ñoom ñoo koy liggéey hmm. tey du ma taxawoon ni leen kaay ma dama leen a jox temps pour ñu bàyyi ma demit yaa ngi day métti rek mais kenn mënu ko dindi parce que gerte ko hmm. te souvent population bi loolu la ñuy a bëgg a dégg sax que par rapport nga wax leen dëgg man nag li xam mooy dëgg mooy ñoom ay nit la ay doomu aadama lan dañuy calculer di xalaat te ni xalaate man noonu laay xalaate te foofu noonu ñu ma dugaloon noonu spécial boobu noonu ñu may wax noonu man ne damaa yàgg opposé wu ne leen fii du haute sécurité fii amul benn sé parce que bi sax moo ko ëpp sécurité comprendre mais xam nga ñoom tamit seen liggéey la lu ko ñun ñun ñooñu imposé lii mooy lii wala lii mooy laa mais nag am nañ doon nag gis gis luñ gis wax ko man musuma gëm affaire sécurité foofu noonu parce que musu am sécurité. d'accord d'accord man nag sama xel laa wax léegi nag infraction bi ma def nii defuma ko pour bañ a tëdd kaso defuma ko ngir rawataso defuma ko ngir affaire baan yi defuma ko ngir saboté administration bi daal si maa ngi ñoom relation bu rafet la ñor mhm. gis nga sama ay di see sama dossier mhm. dañ si doxo doxo doxo sa surtout la DAP DAP si boobu moom dafa bañ injustice mooy Boané mhm. dèjà injustice ñoom ñëpp bi ñu ko constaté DAP ministre de la justice Malick Sall woo na ko si sama affaire SG bi SGM bi madame Badiane woo na ko si sama affaire woo na procureur général sama affaire woo na procureur de l'Afrique sama affaire na même doyen de justice sama affaire mhm. mais dafa am leneen lu nekk ci suuf loo xamante si ni moo tax loolu yëpp muy def noonu mënul feeñ te aussi tamit moom it ak directeur la rek dañ ko dénk pigeon atte wooluñ ko bàyyiloowuñ ko mhm. moom mu sañ a gis constaté li injustice am na fi mu signalé ko rek la man man comprendre naa ko bu baax a baax a baax léegi nag man dama choisir que ne lii ma def nii mhm. donte si côté am euh, euh, du mën na ko bañ a arrangé si côté mhm. mais man mooy li nga xam ne man mooy guerre bi ma choisir di parlement te alors que domaine bi ñuy parle ñoom dèjà maîtrisewuñ ko ki ñuy waxal xamuñu ko lu kenn mënu la wax ne lii la def yàlla may na ma tur nag parce que man bëri naa pexe lool mhm. bëri naa pexe lool yàlla dogal na depuis ma am euh, onze ans ba ni may waxee man foo ma fekk man wàllum technique ak wàllum informatique maintenance yooyu ci laa nekk. Hmm. ba pare def naa aventure bu bari tamit daanaka fu bari dem naa fa ci àdduna bi. Hmm. waaw yàlla tamit may na ma lool may na ma lool noonu. day nag maa lancé pour Sénégal ñu leen hmm. ak autorité yëpp comme ni ma waxoon léegi dawuma kaso pour bañ kaso dawuma kaso bu dara kaso dawuma kaso bu dara man li may def nii pression bi ñu si am ak wax ju bëri ñu man owuma ko xaw man lan lan laa gis. man hmm. dama ne guerre c'est la guerre te doomu aadama dafa war a guerre ba xëy dugg si biir bàmmeel man loolu laa gëm. def hmm. yi touché na ma métti na ma du ma sañoon dama ko def du ma sañoon damay nekk si loxo administration bi naan ñu seere sama mbir comme ni ñu ko war a seere ba bis jot ñu ne mag seeral nan la wala ñu kat lii la yoon def di wax si yow mu jeex ma jéen jaar nii mais duma ma sañoon tey du ma dem ba sama bu waratu ba tëdd kaso ñuy continuer di ba tey kaso ba tax tey lii ni mu demee mu frustration bi ma amal administration bu tànk bi ma dootu ñëwaatee di évadé waat man dina ma touché lool mais damay xam ne du ñu am mhm. du man mii tamit koo def parce que gënalu ma du ma ma ko def mhm. waaye dama xam ne ñi ma ko seexal il faut que tamit nga indi ko man nag wóolu naa sama bopp ma Sénégal dem ma fenn maa ngi bii si dëkk bi toog mhm. léegi man dama leen laaj a défi dama ne leen ñu fekkee ñoom li ñuy wax dëgg la yor nañ seen dossier gëm na li ñoo xam ne seen preuve man maa ngi leen saa bu ñu jëlee dossier bi yóbbu ko tribunal samay ay avocat saa buñ ma informé que ne dossier dem na tribunal dañ koy atte sur tel su tel boobu du may wax tribunal ma leen fay fekk man amu si lu may sax amu ma si kon yow daal évasion bi da nga ko ah, def pour pour ñu pour ñu sëgg ci say mbir mu jeex benn yoon nga xam foo féete. non pas pas sëgg si say mbir xam ñoom du la neex sëgg si yoon nga xam bañ parce te amul amul nekk Samba bi ñu ko commencé di di yàkkam ci di parax parax yi man bi bu ñuy ko benn papier ne ko nii àtte ko ba pare mu ne ma non àtte nañ ko mais dañoo respecté wu doon article cent cent un bi parce que yëpp koo xam ne la accès dossier criminel balaa ñu lay enquête sa affaire dafa la toog ma ne ko loolu yëpp dossier bi àtte nañ ko depuis tribunal mineur génn papier woon ko mu li ko depuis boobu la bloqué enquête bi enquête ñu ngi ko bloqué deux mille dix huit ba deux mille vingt koy doog a laalaat hmm. janvier le vingt deux janvier deux mille dix huit ba ma ko nee papier bi mhm. la Samba Sarr bloqué enquête bi janvier euh, deux mille dix huit euh, deux euh, de mille dix neuf deux mille vingt ba deux mille vingt et un la ñuy doog laalaat dossier bi le vingt quatre le vingt deux février deux mille vingt quatre bi si la may doog a waat si dossier boobu comprendre mhm. léegi nag ñoom dañ ne ko joxee liberté provisoire day daw doo ko lay àtte du ñëwaat léegi la léegi man joxuñu ma liberté provisoire man maa man man si woo man maa forcé ma liberté provisoire <laughs> léegi nag maa ngi maa ngi si biti maa ngi si nature bi ça n'est pas mhm. fi ma nekk du ma ko wax kenn mhm. déplacé du ma fenn ay bu njëkk li nga xam ne ay daw na dem na gaan nekk li laa kenn ku nekk di indi problème di di créer ay mbir léegi teralu Sénégal gi day toog mhm. di leen bàyyi xel jour et nuit saa bu sama duñee demee te naa nu ma wooyee ba ñëw fekk leen tiim naa la wan leen ne man doonu ma kuy daw te